damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu kan moo may tontu xam-xam ndax am na bu góor am bu jigéen ngëm ndax am na bu góor am bu jigéen jaamu ndax am na bu góor am bu jigéen jëf ndax am na bu góor am bu jigéen bëgg ndax am na bu góor am bu baax ndax bu am bu njub ndax bu am bu ndax am na bu góor am bu jigéen dagu ndax am na bu góor am bu jigéen positif ndax am na bu góor am bu jigéen cër ndax am na bu góor am bu jigéen ngërëm ndax am na bu góor am bu jigéen mbég ndax am na bu góor am bu jigéen damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu kan moo may tontu ndax nit mën na umpale mu jëm ñaawe njortu mor mu jaamam dëkkal ko sa faan fa la jëm ba noppi rafet njort ci boppam lisam sharia aqiqa jigéen du jiite ci sharia lan mooy layam ci aqiqa wala yeneen anam sobul yàlla yàlla miy def lu ko soob ndax góor lay may lu ko soob wala du defal jigéen lu ko soob kon wax leen ma lu ko soob damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu kan moo may tontu bu jigéen ëppee góor ñi ay jëf lamboo njuba xam bari yëf defara junni nit dal di këf ndax dañ koy xañ cëram fakk jëf koppar kër oto neex bàkkan mu jox Sëriñ tubaab muy sàkkan di defal lu baax sa askan moo ana lu ciy foo topp bakkan bokk ci sunna yonentam jëf ju mu seede ci kanamam ka feccal sëriñ saaliw dab mbéggam fa sakatu bajak xaa xam boromam damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku tontu kan moo may tontu fan la taalibe bi di jëm sëriñam tegtal ko jëmm ne ko mooy sama dëgg jëm ndax sañu ko jàppe jëmmam fan la taalibe bi di jëm bëgg sëriñam jëfe ndigal leneen lu ko mooy di ko dugal ñu tam ko dëmm bëgg ko mbugal fan la taalibe bi di jëm lu muy dund tey déggoon na ko sëriñam ba waxoon na ko su ko baamtoo ñewe di ko fan la taalibe bi di jëm lu ko neen gëm mu maandu ca mbiru sëriñam nga àddu ca teg ca safaan faat ngir fitna damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku tontu kan moo may tontu fan la taalibe bi di jëm buy ëf ngay màtte ay bëñ mu di la ree ak i bëñ nga fàtte ne daa ami bëñ Sëriñ Tuubaa mën na boppam moom mi xamal nit boroomam mu xam boroomam ci boppam kenn du ko xeexal ci boppam loo gis duniyaa am na yem dëgg rekk ay mujj amul yem bilaay def defam jar na yéem gaa ñi yéeme moo leen yéem damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu kan moo may tontu sëriñ Saaliw sëriñ Tuubaa defoon sëriñ bi Cheikh Amba dafa waxoo ay kàddoom laa wane abadan matam gaa sëriñ bee coow seexam bi moo ñu joxor bi soxna si ne mooy dëggi-dëggi jëmmam ji ku xamul maandul ci dogal yi fonk nañu mboolem njabootam jox cër mboole mi soxnaam ci yar ak teggin ay ngërëmam lañuy taataan ak mbéggam damay laajte ku tontu damay laajte ku may tontu damay laajte ku may tontu kan mo may tontu damay laajte ku may e tontu damay laajte ku may e tontu damay laajte ku may e tontu kan mo may tontu sëriñ Muntaxa mbake xalif journal des Mourides yalla na fi yag lool ak di ñaanal soxna Ayda Saliou suñu yaakaar yi tey ëllëg yal na fi yag lool te ànd ak wér nongali Modou ndjay daru salam Touba